alaikum mbokki Sénégal alaikum mbokki diaspora bi alaikum mbokki département de Dakar Mais dellu siwaat tey ci les vidéos de Barthélémy Diaz l'officiel nous waxtaan si ak yéen mbokk yi yëgal leen tamit fan nañu toll ci euh, di xeex bu ñuy pour mën ar, suñu tefes la sauvegarde du littoral may njëkk a monsieur le préfet de Dakar di madame le sous-préfet des Almadies Nous avons xam mardi le 9 juin 2020 dañu woote ben le site concerné préfet de Dakar dit euh, représentant de l'État dit autorité dit Khalatem dafa daal di convoqué un décret de 1996 décret bobou mu joxe xalaatam ci fan le commune FAN.E Point E di commencé ak fu muy ak fan le commune mermo Sacré-Cœur di commencé ak fu muy jeexee ñu ciy jaajëfee bu baax baax monsieur le préfet du département de Dakar lu ci préfet wax dégg il ko wante wax na préfet que d'accorduma si parce que l'idée di géeju Mermoz mini-bir, commune de Mermoz Sacré-Cœur te lolu amul benn Mindef, bu fi mën a ci boppu askan wi lenen parce que fi lañu ñu ñun fi lañu une fois de plus te indiqué naa ko tamit à monsieur le préfet de Dakar respectueusement nena décret 1996 bu ngeen convoqué décret bobu bu ngeen diko convoqué ak buñ koy jël amna ay tali yu ça n'existait pas euh, dans le département de Dakar. Manak Luma convoqué, moi j'ai convoqué le décret 2008-1025 du 10 septembre 2008. Vous convoqué décret 96, man convoqué le décret 2008. Décret 2008 est abrogé décret 96, koku mom danaka ala kuli al ñep xam nañ ko. Buguma ak parce que suma Je di xëccoo wala di ak préfet de Dakar wala di xëccoo wala di werante ak sous-préfet des Almadies parce que ñom ak ñun Ben lañu Motax ma ñaax suñu avocat yi nañu saisir la justice sénégalaise saisir le juge compétent à la matière pour ñu mëna am ci ñom lu ñuy woyee ci tubaab sursoir à exécution Danaka na ñëpp taxaw na ñëpp tek lepp ci suuf ba justice sénégalaise dal di ci joxe xalaatam loolu moo jaadu euh, mbokk yi lu dafa am solo du waxu politique waxu suñu momel la suñu alal la suñu la euh, man Barthélémy Diaz wax naa ko citoyen sénégalais personne physique wala personne morale nga yor sa dossier nga indiko, ko te awma lenn lu ma ciy teg daanaka awma lenn ma convoqué ci code général des collectivités locales muy loi aw lenn lu ma mën a convoqué ci code de l'urbanisme muy loi aw lenn lu ma mën a convoqué ci code de l'environnement muy loi wax dëgg yàlla boobaa naa la signaler sa këyit te wax naa ko moo tax ma ne amul benn révélation bu ñu fi def ci Barthélémy Diaz parce que j'ai déjà indiqué que j'ai eu à signer des permis de construire euh, sur le domaine public national ou sur le domaine euh, public maritime parce que nag ku dem ba am sa wërsëg man ken faluma bu may xañ nit ñi seen wërsëg wante dégg naa suma benn kilifa di suma wojur di monsieur Pierre Kujabi Atepa jot fi wax ay wax euh, ñu ma jàpp ne ni mënoon na ñàkk euh, lenn rek laa bëggoon wax ci lii di domaine public maritime je pense que Pierre Goudiaby Atepa ci jamono président Abdoulaye Wade ñu savons xamoon nañ que le conseil architecte du président Abdoulaye Wade donc mon ci bopom, ci domaine public maritime je pense que suñu waxee tey porte du millénaire Koko, Khalatou, Pierre Atepal, la te bu mu koy défendre kenn musuma dëgg ma koy parce que meuna naa juum wante amna yakar ne ni que particulièrement askanu medina dañ ci gis sen bop dañ fay dem difa fa benen bi tamit tey gis ngeen tay amna na benn scandale bu reuy buñu buñuy waxtane ci euh, biiru Sénégal moy scandaleu Mamel Mamel dama bëgg tamit sénégalais particulièrement Dakar waaye ñu xam lan moy Mamel ku wax Mamel yaangi ngi ñaar benn bi moy fu am le phare de mamel, te ñu ñëpp ñu xam ko benen bi moy fu mu fu ñu le monument de la Renaissance tamit monument de la renaissance Borou, jamono Yoyu, Pierre Goudiabi Atepa mon conseil architecte président Abdoulaye wad askan wi ñaxtu nañu xex nañu xuloo nañu to nañ ndax monument Bobou, ñu bañ ko fa tabax chacun peut apprécier à sa juste valeur utilité bu monument bi am euh, le quotidien des Sénégalais am lu ma ci bëgg wax je pense que ñun ñëpp dañu nar a assumer suñu ay responsabilité waaw te bañ a dans doomu gor fu mu dëkkul Pierre a Goudiaby pas tamit mangi ngi la wax parce que Serigne Djibi Diallo bu ñuy tudd noonu ne moom la ñu 5000 mètres carrés ci naa wat euh jamono buñ koy jébbal Djibi Diallo bobu Pierre Goudiaby Atepa mon nekkoon conseil architecte ou président Abdoulaye Wade.

Ce que nous def dama a ci te commune de Mermo Sacré-Cœur amna amna ay ñu fi indi ay am titre foncier fi biir cité que ma lank bañ leen permis de construire te euh, borom restaurant bu la galette te nek ville ñom xam nañ fi may dit, nañ fi ak ne ñom mom terrain bu nek cité cœur indi seen këyit lépp mët terrain bobu ba ko SICAP di aménager di aménager cité Kër gui ci plan d'aménagement jardin public le noron Donk kon nak man mënuma signer permis de construire bobu parce que lolu moy lu détournement d'objectif te wa domaine ñu may dégg bu ci tegu ci Sacré-Cœur 3 fu montagne ak vallée amna fa ben bayal bu mag a mag société bu ñuy ñëw nañu indi seen ay këyit këyit yi yëpp tegu ci yoon ma lank permis de construire parce que ci plan d'aménagement à l'origine jardin public le woon kon munu ko woon loolu xanaa nopp mën na ko te xel mën na ko bu ci yi wax parce que xeex bi moom bu am xel ñaar parce que ñuñ ko seqal dañu matul à équilibre, Nous may ma ma de tout ci ginnaaw lu préfet de Dakar wax ci ci lu préfet de Dakar wax nee na terrain bu nekk ci corniche bi benn genn terrain bi mi ci commune fan Point Amitié Benen genn wala terrain bi mi ci commune Sacré-Cœur Tes préfet de Dakar est may dégg sous-préfet Almadig may kon man ba ko préfet Dakar waxee ma ne ko mën naa ci bañ a ànd wante nangul naa la sañ-sañ bu la yoon may nangul naa la tamit taxawaay bu nga am fii tey ci biir département de Dakar wante man Barthélémy Dias lu may xeex te mënuma ci d'accord mënuma d'accord nit bëgg a jël géeju ñépp bëgg ko akimo mu doon moomeelu boppam te loolu moo fa am mooy benn lu ma mënul d'accord moy ñu jël ben waay bu ñuy woowee Djibi Diallo waaw té yàgg naa ko wax nee naa fonctionnaire international la te dinaa si delluwaat ñu ne koku dañ ko attribuer 5000 mètres carrés mom mu fay ci mètre carré bu nekk mu fay 2450 francs droit de timbre tey mètre carré bu nekk soko yobbo banque ñu jox la ci 1 million ndax lan ndax dañu jël ben contrat de location muy lu ñuy woowee bàyyi

Lolou moy wax ci té ñu may waxal xam nañ seen nyom motax contrat de location bobu bu ñu nous woyé ñu ko mu titre foncier ça s'appelle un détournement de deniers public... motax tax len ala al xex dina am buma ci buma ci tek dama ci dama insister dama ne il faut qu'on se comprenne Degna Sankh sànq M. Djibi Diallo sous-préfet de Dakar Plateau Yekiti ay tout tudd fa sama tur maa ngi koy ñaawlu bu baax a y bu ci njëkk a euh, le préfet de Dakar parce que bépp sous-préfet bu Nek biir Dakar moo le le ilif te wax dëgg yàlla tey ci suba euh, démarche responsable le préfet de Dakar tey euh, euh ci site bobu wante nak su baat ci kaw comme dëkk bi dafa am lu ñuy VAR na ngeen ma ban VAR fu Barthélémy Diaz tudd Djibi Diallo sous-préfet de Dakar Plateau fan la ko tudd mom nak su démé tey ba di tudd je souhaiterais qu'il sache que je ne l'ai pas sonné c'est très important mom ci boppam bala muy ñëw Dakar Plateau na wax askanu ndakaaru jaar-jaaram Sangalkam na leen ko wax na wax askanu ndakaaru jaar-jaaram fële ci Gossas góor bu ñuy woowee Abdou na nekkoon représentant du xalif général des Mourides fële ci Gossas lan lañ fa jotee ak moom moom lan la jotee ak góor googu kon nag moom su jaaree tey moo xam Sangalkam jaar gosas Gossas ñooñu wax lu ñaaw ci moom moom su ñëwee tey biir ndakaaru dama man du parce que man musuma lal ci je reviens à ce que j'ai déjà dit je ne l'ai pas sonné je n'ai jamais cité M. Djibi sous-préfet des Almadies nulle part il ne m'intéresse pas ce qui m'intéresse je reviens à ce que j'ai dit c'est le pillage et le bradage du littoral cette association de malfaiteurs cette bande de voleurs et de pilleurs et vous, vous connaissez très bien soi-disant fonctionnaires de l'État du Sénégal, une bande de fonctionnaires véreux, je vous dis que ça ne passera pas. Quand à ce site, je reviendrai sur le site. Comme monsieur le sous-préfet de Dakar Plateau a décidé qu'on ne reviendra pas, eh bien je reviendrai. Je reviendrai, et cette fois-ci, je reviendrai avec la jeunesse de Dakar. Il n'est pas question de vous laisser piller le littoral sénégalais. Il n'est pas question de vous laisser privatiser des, pages, des plages publiques. Vous n'impressionnez personne. Vous n'intimiderez personne. Je suis au regret de vous dire que vous êtes une bande de vermines, des moins que rien. Vous n'avez même pas honte de sucer le sang du peuple sénégalais. Honte à vous. Honte à vous qui n'avez même pas honte de sucer le foncier du peuple sénégalais. Honte à vous. Pour de petites enveloppes. Honte à vous. Sans aucune diversion, chers amis, je reviens à ce que j'ai dit. Nous exigeons un sursoir à exécution sur le site jusqu'à ce que le droit soit dit. Je reviens à ce que le préfet de Dakar a dit et nous le respecterons. Le terrain est à cheval entre la commune de Fan.e Amitié et de mermo sacré cœur dans l'entendement du préfet de Dakar qui a convoqué un décret de 1996 que je conteste. Je n'ai pas dit que j'ai raison sur le préfet de Dakar. Je dis que je le conteste avec un décret 2008-1025 du 10 septembre 2008. À la justice de dire le droit. Je terminerai par dire au peuple de Dakar et à la jeunesse de Dakar, levez-vous, mobilisez-vous. Il y a des choses qui sont inadmissibles dans une république qui se respecte. Inadmissibles. Moki Manglendi Djogolou, si les propos ont pu être assez durs, mais aujourd'hui, force est de dire et de reconnaître que trop c'est trop. Il y en a franchement marre de ce pillage à ciel ouvert. Nous devons nous mobiliser, nous devons revenir à la raison, nous devons, nous devons faire preuve de responsabilité et nous devons faire preuve de tenue et de retenue. On ne peut pas accepter aujourd'hui qu'une petite brochette de privilégiés pense être mieux née que l'écrasante majorité des Sénégalais et veulent s'approprier toutes les richesses de ce pays avec la complicité, une fois de plus, et les magouilles de certains fonctionnaires véreux. Et si ces fonctionnaires ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller saisir la justice sénégalaise et on verra bien ce que leur mécontentement donnera comme résultat. mbokk yi ñu ngi leen di gërëm di leen di sant jërë ngeen jëf.